man moom moo nuroog man aywa en tout cas euh, nuróoga moom bañuma ko ndax bu fekkoon ne dañoo xam ci moom jikko ju bon wala mu nekk ci lu bon boobaa moom ku ma ne da ngaa nuróog moom maa maa moom danañ am problème waaye nag comme que yàlla dogal na jikko ju baax rek laa xam ci moom doonte xamantewuñ wuñ personnellement benn yoon lañ mas a gisee mooy bi mu nekkee ci kaso ba ma amoon ko ma doon seeti sama benn wëllëri bu fa nekkoon nga xam ne dañ ko ñoom lañ téyandoo woon muy Cheikh Omar Diagne sama wëllëri la lool doon sama xarit lool ma koy safoo lool nag ndax ak dëggu laa xam ci moom euh, bi ma àggee toog ci fi ñuy xaare ay mbokkam moom Bachir fekk ma fa ku agsi rek ne ma eh Bachir man leen du moom de ma xamne kon nuróo gi amna? fam tambale nak manam yik wax joju moy ben bis laa mas a génn ci sama buntu keur ben borom auto bu garé won ci sama buntu keur bi ma xoolee daan ne ma bashir jumaay fay lola sax lu yag la moom lola lu yag la bi ma ko waxee ma ko yow dang ma xam mune ma xam mané man ko lu tax way bashir jumaay fay yow gis nit xamoo ko xamoo fam mu dëkk xamoo nga daan ko basir Diomaye fay mu ne ma da ngeen ne nuróo rek de ma ne ko aha ko daal de boobu la ma ko nit njëkk a wax waaye nag comme que léegi ñëpp wax nañ ko ah ma gëm ko waaye nag gëm gi nag doon na gën a doon na gën a feddali nag benn bis may seetaan benn vidéo ndeke moom la may xool bu jaax maa waaw man lii fan laa ko defee woon waay boobu laa xam ne affaire rek dëgg la kon loolu moom dëgg la léegi nag luy dëgg nag bay boo ñu rek moo tax léegi ba ma ko gisee ci kaso ba dama ne ko maa yo boo ñu xamante comme que dañuy jaawale li ma ciy tiitloo nag fi mu ne nii du heure bii parce que fi mu ne ñëpp dañoo ànd ak moom amul problème waaye bis bu ñu demee ba sénégalais yi di la wan gannaaw boobu la jafe-jafe ndax boobaa da ngay génn fii ñu ne la yaw la daal la ci teg rek lee ti teg te fekk du fekk du man loolu laa ci daal amaa li ma koy dénk amaa li ma koy dénk xañ na sama kàddu gi dana àgg ci moom ku ko mën a dagg-daggal man mën naa jokkoo ak moom de parce que am naa fa ma ko mën a jaar waaye nag bu ma sañoon euh, yooyu jërul wax ah monsieur la ma koy dénk mooy yàllaa ko jox nguur ci waxtu woo xam ne day ñeneen a ko doon wër soxla ko lool yàlla ne leen yéen ñépp tànnuma leen sama jaam bii tudd Bassirou Diomaye fay te moom sax xalaatul woon ne moom la koy moom la koy jox moom laa ci tànn daal ko koy jox léegi sëñ Basiir ndax yàlla la jox wala déet waaw yàllaa la jox de ñépp yéene la ko yit man mi ma kontaan ci lool ndax moom laa woteel nag te keroog ba may wote ji affaire bi nii laa ko jàppe woon digg bëccëg nga xam ne moom ba ma ko ciy def damaa meloon ne koy geer nii laa ko dugale affaire bi mat taxaw ca digg kër ga di campagne ñeneen leen yéen ñëpp da ngeen woote wan machine ba ma xam ne affaire bi dana mat kon xam nga man maa ngi ci woon waaye daw ma wax ci bitti nag waaye nag maa ngi ci woon moom léegi kon sëñ basir yàllaa la jox nguur fexeel ba sa nguur gi doon loo xam ne yàlla da ci kontaan gërëm ci kon loo ci mën a dimbalee diine yàlla ji muy ci lu feeñ muy ci lu nëbb na doon sa mission loolu dong laa koy dénk barakallahu fiikum